li may wax mooy ndeysaan Wally Seck daa bari ay soppe soppeem yëpp di samay nit ma bari ci ay wëllëre lool mel ne dañoo xaw a jaaxle lool ci jëmmam ja waaye li ma leen waxoon laa leen di répété waatal rek mooy Wally maa ne ko àdduna sépp li ma dégg maa ne ko Wally doo torox insha allahu rabbi ndax li tere torox li ci ëpp suñu borom defal na la ko muy ngërëmul ñaari way la ca des ab liggéeykat nga jàmbaar nga maa ngi dégg ñëpp tiit nag di rab rabi naan day bàyyi wayal waaye Wally bàyyiwul way loolu na leer bàyyiwul way donte jafe-jafe yi bari na gàllankoor yi bari na waaye bàyyiwul way waaye waali daa tàmbaleegul sax bay way loolu laa bëgg ñëpp xam ko te am riir a ngi waaj ñëw moo xam si ne ñëpp danañ xam ne waali tàmbaleegul bay bàyyi loolu rek laa ne naa ngir dalale ko seeni xel yéen ñi nga xam ay soppeem ngeen beneen ba ca des mooy yàlla yàlla def ci réew mi jàmm la des mooy wolof dani mën naa ko junne mënuma ko bokk ci xam naa ko junne xaw ma ko bokku ci gaañaa ngi ci gaañu waaye gaañoo ngi ci biir gaañe képp koo xamul te xamul lu ko ndayam boote ndek woo eh, mbaa booy wax ci moom nga wax ci moom jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu